dem leen ngeen abonné wu ci sama seen YouTube ngeen may seen bi doole maa ngi ñëw tey ci samedi mu nekk championnat Angleterre diggante Arsenal ak Leicester Arsenal moom moo dalal Leicester ci këram te nag bu ñuy wax ci Arsenal dañuy wax ci qualité bu nekk ci équipe bi mais dañuy wax ci qualité bu nekk ci jeunes jour yi seen attaquant de pointe muy Kan Lacazette mu nekk international français. mu nekk capitaine Arsenal muy ngi wane boppam chaque marche moom la cachette Arsenal fu ñu nekkoon démb ak tey ute na lool te fu ñu jógee sore na tey nag ñoom ñoo jël quatrième place bi fa lañ nekk pour le moment mu nekk lu baas équipe bi ndax géej naa jouer Ligue des Champions kon ñoom tamit ñi ngi rey seen bopp pour année prochaine ñu mën a jouer Ligue des champion Arsenal ñi ngi ñëw mais Arsenal yeew nañu ñi ngi ci forme moom lañu leen indiloon tey diggante moom ak Leicester Arsenal moo ko dóor deux buts à zéro mu nekk lu baax si équipe bi ma laal seen